waa Pastef seen taxawaay rafet na waaye lu ngeen doon def benn de multiplier leen ko par 10 parrainage bi ñuy wax gis nañ ni tey ay milliers et milliers fiches remonté na ñëw jóge ci région yëpp ak Dakar dañ leen assigné woon objectif 800000 waaye li ma gis tey yokk nañ ko 1 million. dem leen fekki sénégalais yi fi ñu ne. dem leen fekki sénégalais suñu ne wax leen ak ñoom liir leen livre bi approprier leen ko dem leen gis baykat yi dem leen gis nappkat yi dem leen gis mbër yi wax leen lan mooy seen cër ci Sénégal ak lan lañ leen prévoiral loola tax professeur ne je fais beaucoup de social waaye am réew dañ koy penco dañuy fexe ba ñi war a bokk ci réew mi yépp gis seen bopp ci réew mi waa diaspora ñoo ngi rafetlu seen liggéey bokk na ci li ngeen di mooy yéen